cuuraay verte fene wala. bu daggatoo na def dara wala Oumar Sine Sylla nee na salaam ana Mami Samb Mami Samb. dañoo am voyagé woon dañoo am kii ni koy waxee mais dina ñibbi si. plantation suba incha comme ça di ngeen ko am cette semaine sur le plateau incha allah. Biboulaye Touré. alors mi ngi mi ngi lay ziar. lay sosu julde. mi ngi nuyu mi ngi ñëpp mu leen di nuyu. Fall ñu ngi lay nuyu bu baax a baax Biboulaye mi ngi laajte na kii <laughs> ana ana mami Mor Diagne ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu internautes yi nga xam ne ñu ngi seetaan euh, présentement. Mhm. Cheikh Fédior moom tam suñu fidèle internaute la ñu ngi koy nuyu bu baax a baax Abdou Silla ñu ngi lay euh, ziar Cheikh Cissé. Fallou. Amina ñaa mu leen defal ay kër yu bare bare Abdou Kar man mi yaay sama bomba ziar nañu bu baax Fatou Girassi man fa mel ne daa am lu ci plateau bi nag te hmm? am na lu xew d'accord <laughs> non ci bi ayca. Hmm. Banaan mu ngi leen di eh, Ba di ban eh. Amadou Ba la Amadou Ba mel ni wala. mais mën na nekk papa. waaw moom day seetaan sax nag daf leen seetaan de. El Hadj Amadou Ba waaw mu leen di seetaan Samba Ndongo bi waroon nekk président cinquième président. bu ex appel waaw. Cheikh Baye Touré nuyu naa leen ñu ngi koy nuyu ak. Yaa Seyda waaw ah, Yaa tam ñu ngi koy ñu ngi koy nuyu. ñang euh, Abda Razak. waaw ah. Nabu moo combat Nabu. <laughs> waaye yaa ne naa lire inter kii euh, commentaire yi. waa sigil soo ko waxul lu ko neexul day sëgg di waa léegi moom non il faut mu siggi nag parce que moo ma yónnee Nabou. yaay waa nee eh, yaay combat am. waaw moom mooy sama combat. a li yombul maanaam kenn dëkkandoo kenn jàmm ci gàllankoor dëgg yàlla eh, Thiané Mbodj mu ngi seetaan depuis eh, Djibouti Babs <laughs> ñu ngi lay bu baax a baax Khadim Bamba Seck ah. merci beaucoup Badou Cissé suñu mbokku Gambie la arabe est ravissante yaa salaam moo ko wax waa elle est très ravissante Khadre Sane Gueye ñu ngi lay nuyu bu baax a baax ah. dama naan góor gi Bachir ni mu rafetee nii boo koy xool sax wallaahi moo daa xam boo koy xool à l'écran ah surtout bu solee bu gàtt bi mini bi oh, <laughs> mës ngaa gis arab ak kilal bu gàtt bi teg si basket <laughs> <laughs> day naxe de da ngeen koy gis nii muy layam layam mi nga naan aram dafa pertinente aram dafa yote boo demee sa kër boo demee këram pour ma yéen ñi may wax ak yi ngay may seetaan nii <laughs> bu leen aram invité añ bu leen lekk ndax matraque la yoon naan lan tiit lekkal <laughs> xamoon nga ne mag yow dinañ dinañ jàkkaarloo Pape ñaa nee na jaara sa rakk ja ah, nekk dèjà mooy kii déedéet kii suñu mbokk euh, bi toggoon na yaasa bi Jeynaba Jeynaba mën man jéem rek laay jëf <laughs> waaye yéen tamit lii du ngeen ci wax alors mettez kankuran. damay damay damay xaar tuuti après nga ñëwal ñu ci sikkat waaw tey la bés bi di di fa tëddee wala nga ñëwal ñu ci léegi nii. laataa ñuy dem xam naa ne. d' accord parce que metti na na aram épouse moi je suis distrait waaw te parce euh, a ajaratu. ngoone le temps ngay dem sur le plateau xam nu ñuy def. waaw may ma fii tuuti dama am gan goo xam ne moom laa bëgg mu defal ma laa xam fi. jël jox ko. du dëgg journée de larme la nekk. moom moo ma jaaxal de. yàlla. elle n'est pas sérieuse. non et puis daf ñu yëngu seen i tey dafa wàcc raawam dafa ñu war a sama bopp rek la. mooy yaay yëgal la. gaa na mën naa leen nag. waaw te dala la. eh moom yow. yow yow eh. ñun kii dugub bi. moom moom ah. mooy li ma interview ba ñu xàmmee ma. ñu ngi fi. am waa gàmm. ñu ngi may ma ci xaalis bi nga may ngi na bu ndox yow tamit nag may ma ci nag. mooy kii du arab. kilo bi bàyyi ak jàpp. ay waay wuy leen lii. ma lay may de yow lay may de. yow lay may de. changer Nabou ça va Nabou naa ma façon de ah. oui man na ak kii. ngoon na jëlaat sa xaalis. dafay bàyyi la topp rek. non nga yeewu rek ma jël lii def ko bloc bu mag. ñëw ne la bon. am ça c'est pour ton petit moom ni instant yi xoolal moom mën naa añ reer suba ndékki ndékkiwaat. wala sa yoon nekk ci ma ah, ah, ah, tey ngaa xuloo eh, eh, eh, naa def waa waa yaay ci jàmm naka waa kër gi a xoolal seet bi nga ma yónnee barke yont bi man naa am yóbbati doxal si diggante jaar doxaat foofu ngooni saali woo ma ne ma naa naa dem foofu si kër nijaayam foofu mu foofu ma demoon noonu def ba ma fa demee si nijaay ba ma fa téye deux jours après ba kusma moo woo ne ma naa dem seeti maamam ma jaaraale seeti maam ma ne ma fa demee maamam day sant sa maam nit ku baax la yow Pape Ousmane. waaw dëgg yàlla téye na ma fa trois après Arab Touré ma woo. dama naa jaar foofu ma magam la dëkkee loolu tax ma yàgg te ba pare Pa Assane mi woo na naa dem dox kóllëre pour pour pour pour soppe mi nga xam ne ñoo nekk foofu. moo tax ma yàgg. Ah, ma ma ma ni ma ma ma ma ni ma ba ba demee ba léegi bilaay li ma lekk bëriwul de. ah ah ah yow wax de yow kenn waxu. aw woon xaalis bu bëri moo tax aw ma woon xaalis bi. naa ko naa ko sa xaalis. aywa bu def loolu. jaajëf maye na fu mu am. mais mais na yàlla ah, man boo ma yónnee ci ma ma ma yàlla xam na ne trois jours lay def. du ma yàgg dootu ma dootu ma dootu ma doo doo kii. déedéet du ma dootu après bu jugee foofu ba bokkuñu ma ma woo. moom mu ne ma naa dem seeti nijaayam bi mu nekk foofu. yow da ngaa encore yow da ngaa bëgg ndawtal. Uh-huh, ah, mu ngi leen nuyu. waaye yow lan moo tax mu bàyyi ba ma wan ba dem muy door a ñëw sama ginnaaw. lii def. waaye na ngeen def nag namm naa leen nag. waaye asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaye wul ma Mass du ngeen ko andi fii ci kër ga mu liggéey. Ah? mën naa ne. d'accord sans limite naan naan ku ku ne na fi te <laughs> sans limite daan dajale daan nañu ci kër gi. waaye Mass day ñëw de waaye Mass du bokk ci matinal. lu tax wax. day ñëw ba pare maas lu ma war a lekk da koy. Ah, ah. ah dina ñëw de fii da toog fii si digg bi fii laa ko tegal. maas lu nu war a lekk maak yow maas dana ko lekk. nee na bis bu ndawal wax. na dëgg nag. wax na dëgg mag moom dañoo am wu dibi boo xam ne dañ koo war a lekk te lekk ko ba ah, ndawal lay wax dëgg la ndawal ndawal ndawal lay ndawal ndawal lay wax <laughs> maas billaay ñëwal kay sans limite kay mën nga fay liggéey amul benn problème waaye doo bokk ci matinal bi de <laughs> ah fi bi may def doo koy def de waaye namm naa leen nag ajaratu aram namm naa la ci loo nekk bàyyaan ci jàmm ajaratu dabu koor namm naa la sama rakk ji <laughs> tàmmu ma di dem te duma la yóbbaale te bu fi di wax dëgg yàlla nag booy demit yóbbu ma bu ma fi bàyyi ci bu topp sama jikkoo ajaratu ngoone saaliw ma takk rek nga takk li nga nekkee bàyyaa ko tey ma yónni woon <laughs> nam naa la yow itam <laughs> la Papa Assane Seck na waaye internautes yi nag nam naa nag ah, je suis contente de vous retrouver ce matin